waaw jërëjëf mbokk mi alaa kulli xaalin ama mbokk mi nga xam ne dangaa gént gis weer bi di ko ñaan boroom kër loolu lu muy tegtale mbokk mi dañ lay xamal ne bu dee dangaa toll ci am borom kër wala nga dem ba aajowoo ko soo bëggee dangay dem ñaan lu ci ci kilifa mooy dañ lay boole kilifa wala nga dem ci kilifa mu ñaanal incha allahu rabbi su la ñaanalee nga sabab boole ko ku ñëw dàqoo ko incha allah rabbi di nga am borom kër balaa yàgg ñu bëri nag dañ naan dama bëgg borom kër waaye bëggun borom kër ñu ci bëri seen comportement ak seen ay wax moo tax daanaka góor gu waxtaan rek ñoom da nañ fi bàyyi dem xooli keneen am na jigéen ñoo xam nag dañuy taamu dañuy xool ku ni bëgg ku ni bañ du caaga nit ki nag mën ngaa xool ki nga bëgg ki nga bañ waaye bul wax ne dama bëgg borom kër neen dama ku may wër gise gisaguma ko kon ñu bari ñu naan damaa bëgg borom kër fekk bëggun borom kër daa am ku ni wër dañ ko gisagut su nga gisee dañuy dem sëy kon borom kër yàlla koy may waaye nag sababu jaam bi ci lay sababloo kon loolu ñu lay tegtal mooy nga dem wut borom kër waaye boole ceeg di ñaan lu di sàkku ñaan ci ay kilifa incha allahu rabbi loolu lañ lay tegtal ci kàttanu